wala soit nga toog jàpp sa njàmbur noppi ki mu dee woon ci sa kër te du ñu nekk li ñu bëgg ci ñun du mat mukk lu dul jàpp ñu ne kenn ku dee ku mën a dee dafa mel ni ci sunu biir kër la dee tant que egguñu foofu cette banalisation de la mort la fi mu ñu yóbbu musiba la te foofu duñ fa egg loolu moo sabab sunu taxawaayu tey bi mi ngook mbokkee xarit yeeg dëkkandoo yi ñoo ko déggandoo Pape Djibril Fall ngeen gis ko noonu mu daal di ubbi rek li nga xamante ni moo di euh, suñu euh, li fi euh, xew tey bile mbokk yi nag li fi xew di dox waaye itam di wax ak jëf ci lépp li nga xamante ni moom moo xew ci réewum askanu suñu gaal mbokk yi saa su nekk nag nii rek lañ koy jël jël li xew rek daal di ko fas yéene faram-fàcce waxtaane ko ak yéen mbokk yi xarit yeeg dëkkandoo yi ngeen dégg rek mu daal di yëkkate ay kàddu wax jëmale ko ci mbir mi nga xamante ni moom moo amoon rek fa nga xamante ni moom moo di ca ci ki coor njiital la nga xamante ni moo di mairie ba di wër ci turu euh, Ousmane Sonko di njiital Pastef ginnaaw euh, coow li nga xamante ni am na ci digganteem ak Adji Sarr ak jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ci ñenn ci askan wi dund ba ci bakkan yi ci root mu daal di génn nag euh, mel ni kuy saafonteeg askanu sunu gaal rawatina ña nga xamante ni ñoom ñoo di waa ci Kicoor ak ña nga xamante ni ñoom ñoo fa nekkoon yëpp Pape Djibril Fall nag di njiital serviteurs yi gis ni nag dafa nekk ay jëfin woo xamante ni jëfin wu doy waar la moom daal comme ni mu ko waxee noonu ngeen ko déggee jàpp na ni daal dañoo jël rek moo di faatu ak euh, euh, dee euh, daal di ko banaliser wàcc ko daal di ko xeeb doye dal ko bu baax a baax a baax leader yi daal gis na ni noonu lañuy la ñuy doxalee ak par rapport ak li nga xamante ni ñoo di askan wi ba tax nag mu daal di ñaawlu yooyu la kàddu bu baax a baax mbokk yi duñ ci sori dañuy seet rek ki nga xamante ni moom moo di Modou faal ah, mu ngi ci ligne bi ñu daal di ko bàyyi mu dugg moom responsable des patriotes de l'APR doonu def leen lu daal di ko bàyyi mu daal di dugg wax li nga xamante moo di xalaatam Modou Fall ñu ngi lay char salaam auditrice ak auditeur Thiès Info man la Modou Fall responsable des patriotes de l'APR Focus Macky 2024 euh, dama indoon benn contribution par rapport ak euh, euh, réaction ab Djibril fal ci sortie Ousmane Sonko à Ziguinchor mooy lendemain procès moom ak Adji Sarr bi li ma ci wax mooy quand un homme politique ay force de l'ordre wàññeeku ci doomu jàmbur wàññeeku ci des enfants de douze treize ans ci ngoon gi amoo lay def lu gën di jubiler di xaqataay di ree di fecc à la limite c'est que tu es insensible tu es insensible ak souffrance bi nga teg sénégalais tu es insensible souffrance bi nga teg ñi nga xam te ne seen i wàññeeku na à force de yor li nga xam te ni eh, seen i waajur ñàkk nañ leen tu es insensible au devenir de ce pays mais li ma waxoon lay waxaat rek quand quelqu'un est prêt à vraiment sacrifier toute la jeunesse sénégalaise pour prendre le pouvoir alors qu'il dit qu'il veut le pouvoir pour la jeunesse. Quand quelqu'un te dit il faut une révolte, une révolution dans ce pays à travers le sang, à travers des morts et des blessés. alors que moom ci boppam il n'affronte pas les forces de l'ordre ay pontam ñi ko wër duñu affronter force de l'ordre les forces occultes yi laakar ci ginnaaw duñu affronter force de l'ordre kooku ku ndey sa ndey ku dee sa ndey juraat c'est normal bañ am ressentiment boo xam te ne bii mooy li nga xam te ni nit ñi dund nañ ko Sénégal particulièrement Ziguinchor kooku mooy Ousmane Sonko innocent sera jamais souvent dama koy wax ci ne Sénégal dama la wax ne leen ñi nga xam te ne bii yéen la wax ne yéen a tax mu bëgg a jël nguur yéen a tax mu bëgg a yéen a tax mu bëgg a ne day wu pour jëmale Sénégal kanam yéen a tax mu ne day jël risque yëpp pour defar réew mi bu leen sacrifié yéen ñëpp li question mooy posé bu jëlee réew mi kan la kan lay àndal liggéey réew mi benn ñaar li mu bëgg mooy jaral ko mu taal réew mi pour mu taalee réew mi jël nguur bu jëlee nguur gi fek mu taal réew mi léegi lan lay liggéey biir biir Sénégal kon kooku li ma waxoon laa ci waxaat gëmul Sénégal gëmul jeunesse bi bëgg nguur ak ñi mu àndal moo ko ci dugal bëgg dund luxe moo ko ci dugal la preuve en est que <laughs> en tant qu'opposant exemple laay wax sénégalais luxe bu muy dund en tant qu'opposant musuma gis benn opposant bu koy dund ci bolide yi muy yor ci kër yi muy dëkk ak moyens financiers kooku bu taxawee ne day indi rupture dana nax yéen jeunesse sénégalaise kon may lancer appel jeunesse sénégalaise di wax ne loolu keroog am ñu bëri foog ne détail la du détail loolu war naa yee ku ne kuy jeune war na laa yee ci attitude bi mais di lancer appel aux parents lu metti seen njab suñu njaboot lay dal kon ñu téye suñu njaboot surtout xale yi nga xam te ne majeur guñu amuñu âge voté ñu leen di nax di leen xeexloo ci mbedd lu leen dal ñun ñooy am problème kon nañu téye suñu njaboot parce que ku ci jur njabootam ku ne c'est pas pour que mu dee ku ci jur njabootam c'est pas pour mu gaañu ku ci jur njabot da nga am yéene yokk xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mi ngoog mbokk yi ñoo ko déggandoo kàddu yi nga xamante ni moom la ci Modou Fall yëkkati mbokk yi xarit yeeg dëkkandoo yi duñu dañuy bàyyi rek ngeen analyser waaye itam ah, joxe li nga xamante ni moom moo di seen xalaat ci wax ci nga xam ni moom la Modou Fall wax ci mbokk yi ci li nga xamante ni moo di commentaire yi bu Modou Fall jàllee itam yi am na keneen koo xamante ni tamit dañ koo fas yéene teewlu rek bu baax a baax a baax mu yooyu ci turu ah, Khadim Diagne moom itam yëkkati na ay kàddoom wax ci mbirum mi nga xamante ni moom moo di kàddu yi ah, serviteur bii di pap Djibril Fall daal di yëkkati jagleel ko njiital parti Pastef Pastef lii di Ousmane Sonko. nuyoog ziare maa ngi bëgg ñëpp wa dégg naa Pape Djibril Fall tey ci conférence de presse bu mu def di dal ci kaw Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko ay nit am ay manifestation yu amal ba ay bakkan rot ca ci kaw loo xam ne ci Ousmane Sonko la jóge matul quarante huit heures Ousmane Sonko génn di sibile mel ne ku daf leen a neex daf ko neex quoi man sama jàngat mooy que Pape Djibril Fall dafa juum quoi waaw parce que Ousmane Sonko génnul pour loolu ndax Ousmane Sonko yaakaar naa ne ak wax yu fi bare yu fi jaar gëm naa ne loolu moo waral sorteem bi mais pour man Pape Djibril Fall war na mën a jéem a taxawe neneen ci langu politique am lu dul di dal ci kaw koo xam ne mën nañ ne farandoom la war a doon ci oppos opposition bi quoi koo xam ne ci opposition bi la fare kooku pour man euh, Pape Djibril Fall warul di daal ci ñoom moom seen bëgg-bëgg leen la war doon mooy que Macky Sall bañ a bokk deux mille vingt quatre ba pare mu bàyyi justice bi doxal yo kon pour man Pape Djibril Fall chaque jour buy génn war na buy defati communication muy def ndànk di bañ di dal ci kaw Ousmane Sonko ndax boo xoolee toujours moom bu génnee rek dafay def directement ci kaw Ousmane Sonko ci loo xam ne Ousmane Sonko bokkul ak moom xalaat ci loolu kon daal man gëm naa ne Pape Djibril Fall war na gën a mën a xoolaat ay waxam war a gën a mën a defaraat tooginam surtout ci ay waxam daal waaw man daal loolu moom rafetlu ma ko ci côté Pape Djibril Fall quoi waaw Ousmane Sonko nag moom génnul pour zibilé pour ay nit ñu dee parce que Ousmane Sonko ñi dee métti na ko trop daal pour man waaw comme ni méttee yeneen mi ngook jërëjëf Khadim Diagne ñu daal ko jaajëfal bu baax a baax jox ko wàccuwaayam dellu itam kontaane ko bu baax a baax kàddu yi am na solo macha allah mbokk ci naka noonu rek la ñuy seetee ki nga xamante ni itam euh, kenn la ci kilifa yi euh, diine yi koo xamante ni saa su waxee rek ñu daal di ko teewlu moom itam di imam euh, du ñàkk nag léegoo lekk ñuy seeti ñi nga xamante ni ñoo di kilifa yi diine yi ndax ñoom itam dañuy soxla seen kàddu bu baax a baax mbokk yi kenn ci fekk siqal waxtaan fas yéene koo bàyyi rek mu daal di dugg du kenn ku dul ki nga xam ne moo di bàyyi rogéy nasru wax na wax na itam ci li nga xamante ni moom moo di wàllu waaso bi nga xamante ni moom la Pape Djibril Fall yëkkati waaye itam wax na bu baax a baax ci li nga xam ni itam mbokk yi moom moo di li jëm ci wàllum kàddu yi ay mu wax jagleel ko Sonko ci lu mel ni kuy ndamok jubilek yu ne mel mbokk yi ñu daal di koo teewlu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Cheikh naa ko Serigne Fall Deme ñu ngi lay baax. waaw laaj bi nga xam ne moo nga ma laaj ci eh, jëmm ju naan Pape Djibril Fall bokk ci ñi nga xam ne nee naan bëgg réew mi di posé candidat nekk ci bokk ci candidat yi mm, wax ji nga xam ne moom la wax démb jëme ko ci affaire waaso jëme ko ci président Ousmane Sonko wax jooju nekk na wax joo xam ni wax ju nu nekk na wax joo xam ne fi ko waxee du place am ndax kenn mësul dégg ci làmmiñu président Ousmane Sonko mu wax ni man joolaa laa na ma joolaa yi wootee wala nangam moom koy dafa tegtaloo ci wax yi xam naa ni wax jooju sax xam naa moom doog moo ko dégg ndax ñu bëri bëri ko ndax manifesta yi nga xam ñoo nekk ci Ziguinchor di manifesté wu nee xam naa ci ñoom la déggee ñu ni ah, euh, sunu leader Ousmane Sonko dañuy taxaw défendre ko ndax moom joolaa la Ah, ndax ñun moom rek lañu topp moom daal moo boobu la jël eh, ni ah, président Ousmane Sonko warta ah, nekk fi di indi affaire waasu loolu nag nekk na wax joo xam ne Sénégalais yëpp ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax ndax lool eh, tuumaal na président Ousmane Sonko yokk ko ci tuuma yi nga xam ni moom la ko état Sénégal tegoon beneen ba ci des mu wax ne Ah, ah, ay nit war ñu faatu pare président génn di ciblé déedéet génnul ciblé de maanaam bu fekkee ay nit dañoo nekk sa buntu kër di la ay semaine jar na nga génn jaajëfal leen remercier euh, dégg nga kontaan ci ñoom maam wan maam yokk yokk leen euh, gën leen a encouragé te président Ousmane Sonko noonu la doxee daa génn encouragé xale yi remercier daa duggal ci biir léegi nag moom mu jàpp ko ab ciblé koo xam ne daa gagné bay ciblé loolu tamit nekk na loo xam ne moom daal wax ju ñaaw la wax dëgg yàlla ah, wax ju ñaaw la moom it yaakaar ni amul ci moom chaque jour daa mel ne day day yàqal ko saa ne day yàq ko xam naa ni eh, liñ ci bëgg a wax bari na waaye xam naa ni ñu tënkoon noonu rek ak jërëjëf mbokk yi ba tey ñu wéy di desandi rek ci wàllum waaso wi nga xamante ni moom mooy kaddu yi Pape Djibril Fall yëkkati rek jagleel ko mbokki am mi internet jagleel ko askanu sunu gaal ak li ko wër waaye itam amel ne ku ci namañ ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko di ko ci dànkaafu mbokk yi euh, keneen euh, ku addu ci mbir mu ni mel daal di ci wax rek la ñuy dem seeti kooko moor Seck lay wuyoo ñu daal di koo teewlu rek mbokk yi bu ñu ko defee ñu dikkaat. waaw asalaamaaleykum wa waaw waaw Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall Pape Djibril dafa dafa dafa nelaw waaw waaw dafa nelaw bu baax a baax waaw eh, ak lu mën a doon euh, Sonko mësuta xeertal nit muy votel nit ndax fa mu dëkk wala euh, diine ba mu nekk wala xeet ga mu nekk wala xeet yu mel noonu wala ñoo bokk sax euh, fa ñu dëkk loolu moom Euh, président Sonko mosu koo xiirtal nit mosu faa faa xiirtal nit waaw am na meeting ba mu defee woon Ziguinchor mu wax que te lu leer ci nit bu leen ma votel parce que euh, dama dama bokk dama dëkk fii ci Ziguinchor waaw dafa am ay qualité yu ma bëggoon nit ñi jubal fa bu ñuy votel nit ñu am yaakaar ci moom wóolu ko gis ko mu jub waaw loolu daal Pape xam naa ni moom euh, foofu moom bu xoolaatee mbir yi dina xam ni dafa juum dafa juum bu baax a baax Sonko mësuta woote wala mësuta xirtal nit euh, pour ñu koy votel wala sax di votel keneen parce que ñu ñoo bokk dëkk wala ay séeréer lañu wala ay joolaa lañu wala ay euh, tukkulóor lañu voilà loolu moom lu leer la voilà boo xoolee euh, ba ci président Sonko l'autre là boo xoolee fal fal nit nekkul foofu fal nekkul foofu ba suñu président yi passé ku mel ni Senghor président Senghor est-ce que la mu jëloon da ko yóbbu Zawal maanaam li mu liggéey réew xaalisu réew bi est ko yóbbu Zawal beneen bi président Abdou Abdou Diouf est ce que xaalisam da koy yóbbu euh, fële euh, fa mu dëkk nee Abdoulaye Wade est ce que xaalis bi yëpp xaalis Sénégal da koo jël yóbbu ko Kébémer ba ci président Macky Sall mi Macky Sall fu mu dëkk Fatick est ce que bokkul ci dëkk yi nga xam ne moo gën a euh, metti wala Fuuta ah kon mbir mi mbir mi nekkut nekkut foofu nekkut foofu de waaw dina jaajëfal bu baax a baax. mbokk yi lii mooy li nga xamante ni moo fi xew te gën a fës également ci askanu sunu gaal ci subaak léegi ñu koy waxtaane saa su nekk nag mbokk yi nii lañ koy àndee ak yéen kon yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ñuy seetaan li ñu leen di wax rek moo di koo xamante ni bëgg na participer ci euh, li fi xew li ngay def mooy daal di def li nga xam ni moom moo di euh, envoyé ñu message whatsapp ci numéro bi affiché ci bi 78 296 29 67 78 296 ñu envoyé rek li nga xamante ni moom moo di message euh, saa su nekk rek fekkente ni dañuy waxtaane li fi xew dinañ teel a jël li nga xamante ni moo di thème bi jox la ko nga daal di ciy wax euh, sa xalaat addu ci waaye itam wax ci li nga xamante ni rek euh, bu génnee jariñ mboole seen askanu sunu gaal mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi gis ngeen ni nga xamante ni noonu la ñi ñu jot a seqal waxtaan yëkkati ñi jot a dugg yëpp dégg ngeen li ñu wax ci Modou Fall ba ci ki nga xamante ni moom moo di également moo Seck bu ñuy nee wax dëgg euh, Pape Djibril Fall li mu wax teguwul waaye itam ñii itam nee ñu Ousmane Sonko li nga xamante ni noonu lay doxalee ak fitna gi ñu jàpp ni xëy ne daf koy yee ci ndaw yi euh, nekkul loo xamante ni lu lu lu jaar yoon la kon nag mbokk yi saa su nekk rek ngeen gis euh, mbir mu ci mën di doon rek ak mu ci man di doon ku ci nekk ak li nga xamante ni moo di sa position yéen askan wi seen position lañ soxla saa su nekk rek lu xew ci askanu sunu gaal ngeen wax ci seen xalaat wax ci itam li nga xamante ni moom ngeen jàpp ni euh, sunu ko defee rek réew mi dina antu parce que askanu sunu gaal yéen la ñun la askanu sunu gaal ñun ñëpp la ñun ñëpp ko bokk te kon nag lu ñëpp bokk mbokk lu ne ku ne ngaca kon nag ñun ñëpp nañ koy àndee ma saa su nekk fii ci Thiès Info seen mbokk seen xarit Fall Damel feggoo ci xarale gi ak ki nga xamante ni moo di Papa Madiabel Wade mbokk yi kon ñu jox leen dig daje ba ëllëg ak jàmm ak salaam ci ngeen jëf